jiirë ngeen jëf bakkan yi tëdd démb ca xoosantaw ga ca Kédougou ak deret ju bari jëfa tuuru l'observateur mi ngi ñu wax li ko sooke bil yéenekaay bi dogal bu préfet bi jël jëm ci anam yi ñuy jëlee ñi war a liggéeye ca miin ya loolee moo taal dëkk ba démb ci manifester yu fa amoon ca la benn waaye bu ñu naan Bakary Cissokho di mag ci meerub dëkk ba ñàkkee bakkanam ak beneen waaye boo xam ne ab orpailleur la bu dëkk ci Burkina Faso bu weesoo ñaar ñooñee faatu ca manifestation yi l'observateur nee na ñu am na lopp fukki doomi aadama yu ci ñi doon manifester ñaari nit yu ñàkk seen bakkan lu ëpp fukki nit yu am ay gaañu gaañu vox populi nee nañu lii mooy bilan bi tukkee ci ñaxtu yi amoon démb ca Xosanto ga ca Sabadola ga ca Saraya ga ca Kédougou arrêté préfectoral bi sooke manifestation yi vox populi mi ngi ñuy wax ne annulé nañu ko ba dañuy wax it ne tey jii danañu amal ab CRD spécial ca gouvernance bu Kédougou ngir seet ñuy régler problème bi problème bi journal bi nee nañu mooy askan wa yeewoo ca Saraya dañoo jàpp ne préfet dëkk ba dafa salfaañi seen àq ak seen yelleef journal bi di ñu musiba mbaa ba kumba ci or ba ñuy gas ak gës ca xoosantu ndax am na ñaari nit yu fa ñàkk seen bakkan démb libération ne ko ñaar ñu ñu ñàkk seen bakkan démb ñoom ñëpp or payeur lañu kenn ki Bakary Cissokho la di mag juróom fukkeet ak juróom-ñett amoon bàyyi na ci ginnaaw benn soxna ak juróom-benni doom keneen ki ci des yéenekaay bi nee nañu ab doomu Burkina Faso la bu ñu naan Ibrahim Ouédraogo ñaar fukkeet ak juróom-ñaar di 27 ans moom la amoon amoon na jabar it ak benn doom libération mi ngi ñuy xamal it fukki nit ak ñeent yu jële ay gaañu gaañu yu garaw ci manifesté ya Ka Ndiaye di xale bu jigéen bi ñu fekkoon ci hôpitalam ne ko deqat ci kër Mbay Fall ci mbir moomee ci la Soleil national xëy yëral xët mu njëkko yéenekaay bi mi ngi ñuy xamal ay mbir yu yéeme te raglu ci comportement bu waa ji ñu naan papa moto papa moto mooy waa ji ñu jàpp ne mooy ki faat xale bu jigéen bi jamono ji nag Soleil national ne nañu kenn xamul fu ko jant bi di tiim ndax dafa daw ñu dox dellu ci l'observateur mi ñu xamal ne Abdoulaye Samoura di kankuran bi ñu jamoon paaka mu faatu ca bi ñu ne moo ko def ñu naan ko ndakaaru li ko lëmbe jamono ji di coowal politique lëmbe na xët yu njëkk yéenekaay yu bari ñu xëyandol Amadou Ba mi Macky Sall tànnal waa Benno Bokk Yaakaar tegal leen ko nepp candidat ci élection présidentielle ci Le Quotidien ci lii Quotidien Tribune La Sénégal Rewmi Quotidien Les Échos ak ci Walf Quotidien yéenekaay bu ca nekk ak li mu xëy bind ci Amadou Ba Mountaga Sy directeur général Port autonome bu Dakar di ñu wax ci lii Quotidien li tax ba yaakaar war a wékkee ci Amadou Ba mi président Macky Sall désigné ne candidat bu élection présidentielle 2024 les bons points et d'Amadou non et le côté nee na Amadou Ba mooy ki mën a projet bi doxal ko ni mu et te xaddu ca dam yaakaar mën na caa wikkee te dafa war a yee car joojee di PSE plan Sénégal émergent mon équipe kenn gënu ko koo xam mbir meneen mu mu def Amadou Ba te monte si ne lu jar a xel la nee lu 8091 milliards yi mu dajale woon ci partenaires financiers qui ci jamonoy groupe consultatif bu Paris Abdoulaye Daouda Diallo journal bés bi le jour nee nañu la mu ngànkoon yàbbiwu dit le conseil économique social et environnemental nataal gi gisee na démb ak président de la république Macky Sall président doon ko jéem a baab ak doon ko jéem a raisonné ba dik ko sax poste premier ministre bu ñu gagné waaye loolee dafa mel ne loqewul bëtub Abdoulaye Daouda Diallo candidat beneen bu ñu rëkkale di Mahammed Boun Abdallah Dionne bés bi le jour nee nañu tey jii ci la war a gisee ak président Macky waaye moom Boun Dionne yéenekaay bi nee nañu jege na lool dem ànd ji ak Aly Ngouille mi ñu la mandat di wax jaay yoon yu mu jël direct ci news nee nañu bu ca yaakaare maire yi ca département bu Linguère tàkk na ndax ci fukki maire ak juróom-ñeent ya fa nekk fukk ak juróom-benn yépp ànduñu ak moom mam booy jaawoo ci source wa moom directeur général caisse des dépôts et consignation journal bi nee nañu nit la ko bari ay xar kanam yu wute bu ko neexee mu doon militant discipliné bu ko neexee mu doon ab activiste pire ba muy wax ci boppam keroog ca télévision Futur Média source wa nee nañu dégg nañu ko ca waxam ja mu lu jara bàyyi xel journal bi nañu moom mam booy jaawo nee na ni mu yaroo ak ni mu màggee moo ko def ni mu tey joolaay ndax moom pël la bu juddoo ci biir joolaay yaayam ji ko jur di ab séeréer mu màggee Kolda ca Mandangi jabaram di joolaa xaritu benn bakkanam bi mu maggal di ab catholique yooyu yëpp nag nee na moom la dajale ba tax mu mel ni mu mel tey tey ji anki dina kay ci li mu xëy mooy ci candidat yi bëgg a doon président de la république bu Sénégal présidentielle des inconnus mooy li journal bi bind boole ko nag ak photo bu Khalifa Ababacar Sall bu Amadou Ba bu Aminata Touré bu Anta Babacar Ngom boobu Idrissa Seck ak boobu Karim Wade source mel ne ku naan ko dolli ci Birima Mangara ndax budget ba woon di biri Birima Mangara li mu fas yéene mooy ànd ak waa àndaat defaraat Sénégal doon candidat samp am dëndëm ngir suubu ci élection présidentielle yi 2024